bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina wa maolana muhammadin al amin wa ala alihi wa saxbihi wa asna xadimihi dawi ridwaani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallama yeesal suñu jaayante ak suñu cofeel ci Mawlaana as Cheikh al ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp tàmbalee nuyu bi ak ziyaar bi ci kilifa gu tedd gu baax gi nga xam ne moo toogee jotaayu Cheikhina al Xadim te mat ko sëkk di a Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibn Cheikh Mouhamadul Bachir di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko lool te dëgëral ko lool kattanal ko ba mu àggale mbooleem ay yéeneem ak i naalam ci toolub lislaam bii nga xam ne mooy toolub sëriñ bi ak mboolem njabootuk sëriñ bi ak mboolem. ñun taalibe yi ak jullit ñëpp di leen ndokkeel di ndokkeel sëriñ bi ñu ngi koy ndokkeel moom ci boppam ci xew-xew bu màgg bii nga xam ne ci lañu toll muy xew-xew màggal Tuuba di bisub sant yàlla xam dinañ ci dellu si ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax a baax a baax ci ndokkeel jullit ñëpp ndax lay day loo xam ne jullit ñëpp ko bokk waxuma sax jullit ñi waaye képp kuy doomu aadama te bëgg a jariñu rek sëriñ bi dugal na la ci biir ci biir ci biir cantam gi ndax moom noo foofu la nekk noonu it lay waxe yaa minniya lillaahi wa li rasuli wa islaami wal qabuli loolu la yaakaar naa ne ku ci génn rek yaa ci génn sa bopp ndax buy buy wax moom day wax ne li may wax mi ngi jëm ci yàlla moo ci jiitu jëm ci yonent bi jëm ci jullit ñi waaye ak képp ku nongu képp koo xam ne ni ma yàlla def neex na la rek eh, mën ngaa dugg ci biir loolu la sieb laan waxoon ne nag ki nga xam ne nag moom moo ko jaaxal sëñ bi ne nag ki ko jaaxal mooy ki nga xam ne ni ko yàlla def neexu ko kooku nag wax dëgg yàlla neexut a dimbale waaye yaakaar naa ne kon képp koo xam ne daal ni yàlla def sëñ bi neex na la mën ngaa dugg ci biir cantam gi te cant gi bu ñu ko xasee wax mooy xewal gi ndax xéewal gi ma waral cant gi te mooy màggal gi bu ko ñu war a waxtaan ci jëmmi màggal gi waxtaan ci li ko sabab ak fi mu jaar historique bi ak itam Euh, euh, ni nga xam ne noonu lañ koy defee ak buñ ko defee niñ ko war a defee itam lañ ca mën a jëlee ci njariñ loolu yaakaar naa mooy li am solo ci liñ ci tënk incha allahu taala euh, cosaanal màggal gi ni ñu ko xamee te gëstukat yi bari saxal ko mooy ne mën na sa ko delloo ci ñaari ci ñaari anam ci ñaari cosaan cosaan li nga xam ne moo tax sëriñ bi santaane màggal gi ak njëm ak ak jëmmi santaane gi euh, li tax mooy li tax màggal gi am mooy tukki bi mooy tukki bi sëñ bi tukki woon ci géej gi ndax xam ngeen ne bu tukki bi amul woon ñibbisi gi am ñibbisi gi amul kon màggal gi du am euh, tukki bi it ku ne xam na ne ya ko waraloon bokk na ci sababi feeñ yi ak sababi nëbb yi sababi feeñ yi bokk na ci Euh, fiiraange googu nga xam ne moom la lenn ci euh, chef yi wala ceddo yi fiiroo fiire woon sëriñ bi xëy na te àndoon ceeg ñenn donte sax duñu du ñëpp du ñu bari ci doomi soxna yenn yi ba taxoon ñu doon kalaame dégg nga sëriñ bi ak tubaab bi te ba fekk na tubaab bi noot réew mi ba naagu ci ne dootul amati kenn kuy jógati di xeex ak moom wala ngay jaamaarloog moom ndax bu dee ab sëriñ la bu doon jihaad fexe nañ ba jëflanteeg yow ba ñu baree bari déggatuñ leen doonte ay jàmbaar lañ lool yu dimbuleen islaam lool bu dee it koo xam ne ab ceddo la woon sama maami ceddo yi bari na ci ñoo xam ne ñoom itam tubaab bi ñenn ñi euh, faat na leen ñenn ñi mu génn leen ñenn ñi mu fexe ba wax wax ak ñoom ba convaincre leen wala ñoom ñu ñëw joxe seen bopp sax ànd ak moom nekkal leen fa nekkal leen fañ ne loola taxoon nañu wóolu ko ne amatul benn force buy jóg di jaamaar lak ñoom bi sëriñ bi jógee woote wooteem bi mbooloo mi wuy ko nag eh, ngir ne moom dafay jëmm joo xam ne léppam day njariñ loo xam ne àndut ak lor lu bari ci chef yi chef de province yeeg chef maanaam chef de canton yeeg yooyu gis ne lii daal mi ngi menacé seen existence ak seen euh, seeni seeni ngóor ndax lu baree bari ci seeni dagak seeni maanaam njaboot ñi nga xam ne ci ci ñoom lañ daan yaakaar ay xeeti moyaal ak ay xeeti impôt yooyu bu dee tubaab bi ñooña bàyyi nañ leen fa dem ci sëriñ bi boobu sëñ bi jógee na Mbàkke Kajoor ba ñëw ba ñëw Mbàkke Bawal ba ñëw Daaru Salaam sanc ko ba ñëw Touba riir mi bi mu sancee Touba nag aha yëf yi nag gën a tee gën a tee nag doy waar ci nag tuuma yeeg bundu xataal yi sax lañ ko njëkk a tàmbali di bundu xataal taalibe yi di leen génne di leen sonal di leen def lu ne ba ñi nga xamee noonu lañ tàmbali di bind nag ay plainte di ko yóbbu ci tubaab bi tubaab bi tàmbali rek di gëstu mbirum sëñ bi ba rapport yi tàmbali xam ngeen rapport yi mu ngi tàmbali bi sëñ bi nekkee Touba euh, te ñu wax ne dafa sanc foofu suuf soo xam ne dafa diggu lool ndax mi ngi ci maanaam frontières yi réew yi seq dégg nga Euh, ñu daal tàmbali nag di fa di ko di ko di di ko may bët wutit ay bët ki nopp yoo xam ne ñoo koy digloo ko xool te ñoo ñooñu du ñenn ñu dul ñi nga xam ne ñoo leen fa nekk loolu muy ceddo yi moo te damay xam ki bu la doyloo ne la xoolal wala wala bu la maanaam diglul ma ah, saa boo xëyee ne ko gis naa nangam saa boo xëyee ne ko dégg naa nangam même bu ko faalewut ci njalbeen gi bu yàggee su wax ji baree dana ko jéem a xool ba xam ndax li nga koy wax am na wala amut moo tax tubaab bi tàmbali nag di xool mbiram di ko gëstu ba li nga xamee ne noonu lañ ko euh, tàmbali di ko woolu nag pour mu ñëw wuy si leen waaye moom itam muy koo xam ne léppam daf koy teg ci ndigal boromam euh, ba mu demee ba nga xam ne nag jot na ndigal ci war leen a wuy si fekk na booba yëf yi àgg na foo xam ne ci jaxasoo ci ci ci ci ci boole ak kalaame ak jaxase àgg na foo xam ne jéggi na dayoo fekk mu jóge Touba ca 1895 ca mars 1895 dem sànci Mbàkke Baari ca mois de mars booba. Eh, nag eh, foofa nag fa la jote ndigal ci boromam ngir génn dem wuy ji tubaab bi fekk na booba tubaab bi itam mobilisé na ab armée ab bu bu bare bu mag a mag a mag ci njiital Leclerc ñu jóge Ndar jaar Louga ñëw campé jeewal googu ni ngeen ko xamee rek ba ni sëñ bi xëyee ci fukki fan ak juróom-ñett yi nga xam ne mooy màggal gi ci safar bi dem fekki eh, l'administrateur di Saint-Louis muy Leclerc moomu mu fekki ko foofu nga xam ne moo di jeewal kon loolu mën a xam ne mooy sababu zahir wala ci sababu zahir la bokk sababu baatin itam du daan lu dul loo xam ne li nga xam ne sëñ bi da ko nettalil boppam te mooy ne moom euh, bi mu bi mu demagul ci géej gi dafa wax ne booba fu sëriñ si di àgg ci diggante liimaan ak lislaam ak lexsaan àggoon naa fa te yooyu ñooy xaaji diine yi euh, waaye nee na booba am na yoo xam ne soxla woon naa ko te mënuma ko woon a am lu dul ci tumuranke ji ci noon yi jaxasoog samay noon wéet nag wéetaay woo xam ne danaa ci mën a jàmm sama borom jaamu ga ma bëgg dëgg-dëgg man ci liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam sama sang ba liggéey ba bi bi ma bëgg bi ma yéene dëgg-dëgg ba ba su ma ñëwee ràng ràngoo ay daraja ak i maqaama yoo xam ne bu ëllëgee ku ma yaakaar danaa la mën a añal loole mu misaale ko woon sëñ bi Mbacke daana ko wax di wax ne sëñ bi daana wax ne bi ma demagul ci géej gi damaa mel ne koo xam ne dangaa nuyu ku am maanaam parfum mu bàyyi xeetu parfum ci sa loxo ñu bari ñëw nuyu la ku la nuyu rek xet gi des ci loxoom ñëpp defe ne da ngaa yor parfum bu bari te parfum bu bariwul mu na boobu ma xam ne lay ngor tey jom mooy dem wuti parfum bu baree baree bari ba mu ñëwee ku la ne may ma ci wala tànk ma ci nga mën ko cee tànk ne loolu moo tax mu jaayante yoonu géej gi euh, kon ngir matug nag liimaan ak matug lislaam ak matug lihsaan mooy li ñu tuddee maarifa ak yaqiin ak wusul nee na loolu bokk na ci li tax mu ma ne daal faw danaa dem tumuranke ji ak yeneen i sabab yoo xam ne bokk na ci e, naw gu mu nawoon e, yoolu ak tuyaabay ahlu badrin alkiram ñi nga xam ne ñoo xaraji woon badar ba gis ngeen ci xalwatum bi mujj def ci jàkkee daal xudus yi te sallallahu alayhi feeñu ko ci weeru koor wu mujj wa ca bay sachin ba waxanteeg moom ba bëggoon koo tappal maqaamam xutbaaniya te mu xamal ko ne ko maanaam bëtam jël na loolu lim ne géeje rek mooy bokk ci àndandoom yi nga xam ne ñooy euh, saxaaba yu tedd yooyu xamal ko ne ko loola moom la taxoon ñu koy la la taxoon loola mën a am wees na waaye nag euh, mënees na la koo jaay te liñ la koy jaay mooy ay nattu lay doon yoo xam ne dañ la koy teg bàyyi ko gi say noonu soo ko tegoo te rafetal muñ ga ñu jox la ko waaye nag boo saalitee rek waxuma la xañ la la nga doon wut waaye dañ lay rekki sax far la nga amoon lépp da koy ñàkk ca la ko waxee ca jomam ja ak fitam wa ak njàmbaaram nga ak ngëmam ga ak tawxiidam ja ne ko man de liñ may teg damaa xamagul lu mu doon ba xam danaa ko àttan ak du ma ko àttan rooge itam sàkkuma ko bay xam lu lu ma àttanut li ma mën a waatde mooy ak luñ ma mën a teg lu rëy rëy sëñ Blaat nettali na ko luñ ma mën a teg lu rëy rëy buñ ma téyelee roogi nga xam ne sàkkuma ko rek dana fi fekk jom ju ko mën a dégg moo tax sëñ Ablaay sëñ sëñ Xaadim Jaxate daana ma daana ma nettali wax ne sëñ Ablaye daana wax ne sëñ am Amsatu daana wax ne bu ko sëñ masaana nettali da koy wax ne ko Amsatu ndaxam moos góor day jom na ci ndaxam moos góor day jom baax na ci loole kon jomam ju day joojee ak fitam wa te lépp tawxiid lal ko ak gëm moo tax mu nangoo dékku natt yooyu nga xam ne ñaar téeméeri nattu la ak juróom-ñett fukk ak juróom tolloog aaya suratul baqara te natt bu ci nekk nekk nattu yonent te nattu bu ci nekk mën naa faat bakkan te yooyu yëpp jànkoonte naa ak moom teg nañ ko ko ci géej gi ci juróom-ñetti at yu manqué yi nga xam ne def na ko Gabon diggante Libreville ak Mayomba ak Lambarana ba ni mu ñibbisee nag kon bi mu ñibbisee nag loolu mooy kon li tax màggal gi am bi mu ñibbisee euh, gis ne lam doon wuti am na ko jihaad yi ngeen qada wa bay'i rabiha sama jihaad jeex na sama njaay tono woona wala si waaye kullu kalbin nabaxa bépp noonu bu jóg di yàq dootoo ma jublooti fekkoon na ci mujj gi ci la ci ci géej gi ci làmbar na waxoon na ne rabixtu fi tijaarati fii xurbati wa ashkuru l akrama inda turbati maanaam kon fekk na cant gi naaloon na ko yéene woon na ko ci mujj géej gi ndax ci làmbar na rek la la la wax ne euh, sama commerce bi ma séqoon ak sama boroom liggéey bis da ko tudde léeg-léeg léeg-léeg mu tudde ko xurba tumuranke léeg-léeg léeg-léeg mu tudd ko tijaara am am commerce mooy lu mu nag ak boromam la am lu mu ko doon jaay suñu borom war koo jënd ba mu ko ko jaayee yàlla jënd ko jox ko njëg te njëg gi mat sëkk mu ràng ko li mu ko ràng ci ay maqaamaaki daraja abdullahi xadimu rasulillahi xillullahi xibullahi xalilu rasulillahi xalilu xabib ak yooyu ak yooyu yëpp dégg nga ba mu ko làqee ba xam ne kon njaay ma nongu na nag la ne nag tono woonaa suñu borom am njaayam day am bénéfice rabixtu fi tijaarati fi xurbati ma nekkee ci tumu rànke gi laa am laa làq bénéfice bi ci sama tumuranke ci ci sama commerce mu ne waaye nag kon loolu jar na loolu kon jaral na ma bu ëllëgee bu ma delloo ci sama samam réew danaa sant yàlla wa ashkurul akrama la wax al akrama yàlla mi gën a tedd mi gën a généreux moom laay sant inda turbati kon yéene woon na sax cant gi màggal gi te booba ñëwagul sax jógeegul sax ci tukki bi wala bi mu ñibbisee ba dem gànnaar def fa ñeenti at yéene jooju ne ci xolam rek xëy na mi ngi ko doon def ci geneen anam ba jóge fa ñëw ci yéen yéen a jooju ne ci xolam ba jóge fa nag ñëw njaareem fekk na si Abdul Ahad nee na mboolem diggante yooyu yëpp saa bu demee ba fukk ak juróom-ñett delsi ci at mi dana yàlla dana xiir tubaab bi ñu jëlee ko fañ ko tegoon yóbbu ko feneen yokk natt yañ ko doon teg natt yi ko ndax natt yi bu ñu jàpp ne natt yu tubaab bi rek la waaye amoon na ki natt yoo xam ne natt yi suñ boroom la ak moom léeg-léeg suñu borom daana toog ba mu yàgg mu teg ko feebar bu tawat ju metti yoo xam ne daanaka bakkanam mën na cee des waaye ne woon na ko bu ñu ma téyelee roogi rek jom gi dana ko dégg moo tax daanaka daanaka lu nattu lu feebar metti metti ci moom lu tawat tiis tiis ci moom su bu déggee nodd gi ci jàkk ji rek day mel ne dañoo seppi tawat ja mu jóg dem julli dellusiwaat waaw yooyu mën nañ ci nett lu bari dañuy ci bañ a guddal rek kon euh, muy def saa bu fukk juróom-ñett ñëwee rek ñu dolliwaat natt yi toxal ko fañ ko fañ ko tegoon yóbbu ko feneen ba ni mu ko defee gànnaar yooyu ma wax ci yéen ci yéen jolof ñeenti ati gànnaar juróomi ati ci ba ñëw njaareem nag bi mu ñëwee njaareem nag euh, ba am fa ab diir xëy na nettali yu am nag wute tuuti waaye wute gi amul solo diggante euh, nettali sëñ Mulaay beeg sëñ Abibu beeg euh, sëñ Musaa Ka li mu wax yooyu yëpp daanaka amul xëy na du wute bu am solo li am solo rek mooy ci njaareem daal ci la jotee ndigal nag. ci fësal tënk maanaam cant gi nag muy màggal gi ndax ci njaareem ci la sëñ bi nettal na ci xissa boo xam ne mi ngi ci alminax euh, benn bisu alxamis boo xam ne dafa toog moom sëriñ bi di waxtaan ak taalibe yi ni mu ko baaxoo defee di leen soññ di leen waar. amul lu may jékki-jékki rek am benn bokk taalibe bu gën doon doon doxee ay yitteem far dajeek ci yoon wi benn lëkk ak lëkk. lëg gu gu daal lëg goo xam ne daal gu doy waar la ndax lëg goo xam ne dafa maanaam dawul nit nit ki da koo ñemee taxaw mel ne ku koy ku koy dogale fu mu ko fu mu ko jaar rek mu taxaw wala mu kar ko mu mu amul lu muy def xelam may ko ne na jël kaalaam euh, teg ko ci kaw lëg gi maanaam muur ko ko maanaam yóbbul ko sëñ bi ndax da koo jaaxal nekk te lëg googu ci la sëñ bi di leerale mbirum maanaam màggal geek ak wàllu cant gi. bi mu ñëwee fekk sëñ baa ngi toog ci mbooloo mu bari ñu ñu wër ko mi ngi jublu penku di leen waar leen jàngal tombam yooyu mu ak suñu yooyu kooku mi kooku mi ngi tudd Mouhamad Massissé wala boog Mouhamad Ibnu Massissé alxaafis alxaafis noonu lañu ko daan tuddee xam ne alxaafis mooy ko xam da ngaa mokkal ku mokkal alxuraan wala yu nee na bi bi mu ñëwee daal di nuyoo sëñ bi fay ko mu ne ko ah lii de sëñ bi ak lëg la gu ma fare ci yoon wi sëñ bi ne ko lëg mu ne ko ah mu ne ah andi ma xool mu daal sëñ bi daal mu daal koy jox lëg gi sëñ bi daal di daal di daal tudd yàlla ne subhaanallah lëg gi de ñëwul ci neen ñëwul ngir ngir ngir ngir ak ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir ak neen nee na fekk mi ngi jublu penku mu daal di wëlbati ko jublu sow daal leen di wan ginnaaw tuuti ab diir moom sëñ bi ku tedd ki ba mu yàgg mu daal di wëlbati ko waat jàkkaarloo ak ñoom daal di wax ne e, lëg gi de li ko fi andi mooy dafa ñëw ngir ñaari mbir. benn bi mooy dafa ñëw ngir fàttali bisub tumaranke ba dafa ñëw ngir fàttali bisub tumaranke ba beneen bi mooy dafa ñëw ngir xamle si ne tumaranke googa bis ni ki tey jeex na li des mooy nag jot pay gi ak cant gi daane bisub tumaranke ba moo doon euh, fukk ak juróom-ñett ci jay sachin mooy 1313 loolu mooy kon ba muy dem ci géej gi kon mooy nga xam ne ci la ta ci la tukki bi tàmbali ci la ci la itam tumuraanke gu metti gi tàmbali daane bisub jeexuk tumuraanke gi ak tàmbalik pay gi mooy bisub alxamis yi nga xam ne moom itam mi ngi tombeek euh, fukk ak juróom-ñett ki daal di wax ne kon nag ba noppi daal di daan ne ba noppi it suñ borom it mi ngi may xamalaale ci xarafi gi may yi nga xam ne may na ma ko ci tukki bi ba tax ma war cee sant yàlla daal daal daal di te loolu naa leen ko leeralal daal di daal tàmbali nag di ko leeral daal ne arnabun ci arab soo ko tekkee soo ko bindee day nekk ñeenti araf alif la ak raa ak noon ak baa daal alif gi mooy al ijaabatu ak nongu ak wuyu mboolem lu ma ko mas a ñaan ci liggéey bi mboolem lu ma mas a sàkku ci moom ci liggéey bi mboolem lu ma ko mas a dagaan lépp may na ma ko te xamal na ma loolu ci xara ci xarafi arnabun gi benn daan ne ñaareel ba itam mooy ar arrido mooy ngërëm bokk na li taxoon may liggéey jaayante tukki bi mooy am ngërëmal yàlla na ngërëmal yàlla wa ridwanu min allahi akbar lañ wax la alxuraan wax ngërëmal yàlla li àjjanay rëy rëy ak li yi neex neex am ngërëmal yàlla moo dàq àjjana moo gën a màgg àjjana ndax nit dana am àjjanay gàcc sax te te te doo am ngërëmal yàlla koo xam ne yàlla da ko jugal àjjana rek ci am ràmm wala tilu dara waaye ku am ngërëmal yàlla moom laa sàkk ci ne kooku moom dana am àjjana nit man naa am àjjana te du am ngërëmal yàlla waaye ku am ngërëmal yàlla moom laa sàkk ci ne da nga am àjjana moom euh, te loolu yombut mu ne kon yàlla gërëm na ma <coughs> te mi moo ko xamale ci xarafi arnabun gi <coughs> daan ne nuun gi nag mooy an nafon ad daaim chamil maanaam njariñ li ma bëggoon ci tukki bi mooy loolu loolu mu mu misaaloon ci euh, ci parfum boobu nga xam ne eh, yow ku la seen da yàpp ne man nga koo jariñ fekk amoo loo ko jariñee te loolu wóorut ndax yaakaar ji mën naa tas ëllëg njariñ loola taxoon ma ma jaayante woon tumuranke gi ba dem liggéeyi ba ñëw njariñ loole yàlla jox na ma ko yàlla jariñ na ma te dana jariñ ci man mbindeef yépp loolu wax na ko lu baree bari ba mu koy ñaan sax ci bakkaanax dafa ne lii aw awsili lati uridu wan faxi bi yel wara yaa mughniyan an mid faxi yàlla li ma bëgg di ko wut ci yow maa ngi ñaan nga may ma ko naa ci jot te su ma ci jotee bu mu yem ci man de waaye naa na na nga jariñ ci man mbindeef yëpp waxul sax ñi ma yaakaar rek wala ñi ma sopp rek waaye mboolem mbindeef yëpp na nga jariñ ci man moo tax waxaa na ko feneen nafaani wa biya yanfaul wara yàlla jariñ na ma te ci man lay jariñ mbindeef yëpp waxaa na feneen ne nafaatani fanfa biyal ixwaana wal axawaati wakfina udwaana yàlla jariñ nga ma kon dikk waaye jariñ li bu mu yem ci man waaye na nga jariñaale ci man itam mbokk yu góor yi ak mbokk yu jigéen yi te nga fegal ñu ak noonu wax ne bi di yaali bi laa bukkaay sama njaboot itam bokk na ci li nga leen ni nga leen di maanaam ni nga leen di jariñee ci man mooy na nga leen jubale ci man seenu jub di jaar ci man te buñ jooy buñ am lu leen naqari nañ jub jub goo xam ne day ànd ak mbégte ak bànneex te yooyu yëpp gis nañ yàlla defal nag ko mu ne kon noon gi ci arnabun gi mooy njariñ li mooy an nafaxu daayimu chamil daane baa gi nag mooy albarakatu alwasia mooy barke nag boo xam ne day des ba faw day yaatu lool day matale lool daane yii daal te loolu yaakaar nañ ñëpp gis nañ ko barke bi te barke bi yëpp mu ngi tukkee mi ngi bàyyi ko ci tukki yi nga xam ne moo waral màggal gi ñu waxtaane kon muy al ijaabatu war rida wa nafon wal baraka yooyu la xamle ci xarafi léegi daal di wax nag bokk taalibe bi indi woon léegi nag eh, ne ko yow nag li ma lay digal ci sa digganteeg <coughs> mbindeefu yàlla bi mooy tey jii boo nekkoon fi mu nekk tey maanaam boo nekkoon place am bu fekkoon ne tey sab sab noonu bu la bu la man dalaa jekku téye la ni ngay bëggee mu jëflante kook yow ci ñeewante ak yërmande ak baal la da ngay jëflante ak moom lëggee xam ne sëñ bi laa ne foofu lëggi rek daanaka xam naa damay xam tuuti tuuti kon mu seex fa ndax eh, taalibe yi tàmbali nañ di ko di ko di ko siyaaree karaay def yëpp <coughs> waaye nee na <coughs> borom xista bi di sëñ ma siise moomu sëñ ibnu ma siise moomu Mouhamad ma siise ibnu nee na nee na man maa ngi tiit rek ngir bañ maanaam lëggi def ci samay loxo rek ma ma daal di koy gaaw jël yóbbu ko sama kër ne dama koy teral su ma joxee su ma ko joxee lekk dugub du du lekk su ma ko joxee naan du nangoo naan ne ma daal di koy jël ndànk dem ba fa ma ko fa ma ko jëlee woon ma ne ko fa tegg mu ne mes <laughs> dama ko ne tegg rek mu ne mes daal di dem waaw sëñ bi Lamin bi nett la xisa bi àggal mu ne ne xisa bi ne xisa bu bari ay ay mbóot la boo xam ne xam naa ne sëñ bi eh, li ci nekk lépp sax wax daal ne man mii de ak neexoon sax mu mu mu déey ma lenn ci mbóoti eh, xisa boobu waaw te moom ku ne xam na ne ku jege woon sëñ bi la sëñ bi daan déey ay ay mbóot yu baree bari la kon loolu bu ñu rek day daal di boole mbooleem mbooleem nett li yi nga xam ne day day wax ci cosaanal màggal gi mooy kon ne màggal gi fukk ak juróom-ñetti safar gi ñuy màggal dafay bis boo xam ne mën nañu wax ne paaka ñaari bor la maanaam mooy bis bi nga xam ne ci la sëñ bi demoon ci tukki bi kon ci la natt yi tàmbali waaye itam mooy bis bi nga xam ne itam ci la natt yi jeex ba ba pay gi tàmbali di ñëw pay gi sax tàmbali woon naa ñëw waaye ci dëgg-dëgg nag pay gi nag mu ngi tàmbali dëgg-dëgg ci fukk ak juróom-ñett noonu ko sëñ bi nettalee ci bisu alxames boobu nekkoon fukk ak ci safar ci njaareem loolu ci njaareem la xam naa du sore ay massage maanaam 1340 jàpp 1341 42 xëy na ay 20 21 22 yooyu ci ati tubaab euh, boo boo fekk na xëy na lu ko jiitu nag mu am lenn ci taalibe yi ñoo xam ne waxoon na leen euh, lu aju ci mbirum màggal gi ku mel ne comme comme comme ku mel ne sëñ Mulaay sëñ Mulaay Buso nga xam ne xaaf moom xar moom muy muy muy nettali te nekkoon aw béy te sëñ Moodu Buso taab sëñ Mbàkke joxoon ko sëñ bi te bi sëñ bi demee ba war a santaane màggal gi mu wax sëñ Mulaay ne ko na ko wecc ko am xaaf loolu loolu moom sëñ Mulaay ci boppam moo ko nettali boppam mu mu mu wecc ko am xaaf mu ñëw mu defarloo ko ko digal ko mu jox ko lenn ci ay bàjjanam mu wàgg sëñ bu sawee nekkoon ci kër gi ñu defar ko mu màggal mu xamal ko ne ko bis bii day bis boo xam ne <clears throat> li ma doon wut lépp <clears throat> ci laa ko amee li ngeen doon wut ci man lépp itam ci ngeen ko amee kon saa bu ñëwatee na ngeen ko fonk ci loolu kon ci la. daal di waxee sëñ Balla Faali Jeng it mu xamal ko woo ko jox ko ndigal ne ko na ko siiwal na ko tasaare ba ñëpp dee nga jot ci. nga xam ne diir bi li mu fi nekk moom sëñ bi ci njaareem saa bu màggal masaana ñëw mboolem fu këru murid nekk rawatina ab seex da ngay togg ay ñam yu baree baree bari defar ko ba mu baax ñu indi ko ci kër gu mag gi bu génnee taxaw ci buntu jàkk ji xool xool ndab yi daal di bég lool xolam sedd mu santaane ne nañ ko séddale nañ ko yóbbu ci bërëb sàngam ak kër sàngam ak kër sàngam loolu def na ko diirub diirub lim nekk njaareem ci at yu mujj yi ba ni nga xamee ne yàlla dogal na mu ñibbi si Tuubaa nag ñuy wéyal loola màggal gi ñuy wéyal kenn ku ne di ko def ci sa kër ni ko sëñ bi digle woon ci xilaaf ak Cheikh Moustapha al Karim ba ni Cheikh Moustapha ñibbee àjjana ci la Cheikh Amadou Fadil toog ci xilaafa gi nag def fi ab diir bu yàgg lool daal di koy woote nag daal di ne damaa def koo xam ne ngottuma te bëggal naa sama bopp lu baax bëggal ko ñëpp te bu ma sañoon ñëpp jariñu kon moo woote màggal gi ne nañ koy defee si Touba booba itam nag eh, yoon wi soxla na lu mel noonu ab daje bu mel noonu ndax booba ñu ngi ci naal wu rëy woowu nga xam ne moom moom la leen sëñ bi bàyyee muy jumaay tubaa ji Cheikh Moustapha taxaw ci taxawaay bu rafet indiraay bi eh, fondation jumaa ji ba yëkkati ci ay soroor Cheikh Blade ne woon na bu dul woon ak bi muy deuxième guerre mondiale kon bi mu fi bi ko yàlla randal bu jumaa ji àgguloon itam dana lool. kon laajoon na te moom ci diir li fi nekk mi ngi woote Touba di woote njaareem ci nit fan ci ci aw tamxarit saa bu ñëwee mu def discours fàttali solos jumaa ji ak ndigal li ak li ci nekk ak ak ak ak li ci sëñ bi diggee moo tax bi Cheikh Fadil toogee nag daana kon damaa bëgg ñëpp nag di ñëw daje di di daje fii fi Touba ci fukk ak juróom-ñett ki safar ñu santale Serigne Touba boroomam kon sëñ bi ak cant la ko tudde woon moo tax màggal gi kon ginnaaw bi ñu xamee liy cosaanam ci wàllu tukki bi. xam luy cosaanam ci wàllu historique bi nag kon laaj na ñu xam kon lan mooy màggal maanaam maanaam lan la jublu ci màggal Sëñ Tuubaa bu ne nañ nañ màggal baatu màggal boobu Sëñ Saaliwu nee na ku ko dégg ci moom nga ko dégg ndax booba dafa waxoon mag ñi ne leen bisub saamina achar saa bu ñëwatee na ngeen ko def ne ni ak tabaskiwaat euh, xëy na ci waxin ñoom ñu ñu ñu tàmbali dégg nga tuddee ko ak tabaskiwaat ba ba loolu bëgg a wéy mu woo leen ñu ñu ñëw wala boog dafa leen waxoon ne na ngeen ma ki sant la yàlla euh, daal di daal di wax ne ku ci ku ku ku mu fi fekkati loo loo loo man di ko dale ci ci ginaar ba ci giléem loo man na ko ci def moo tax ma mag ñi am ci ñoo xam dañ daan def ñaari bu ñu amee bu ñu ñaari xar denc menn mi bu tabaski jotee ñu tabaskee menn mi bi gi des ñu denc ko ba màggal ku ci am menn xar sax sax xër ci sëñ bi da nga wax ne ah, man kat yonent yàlla Ibrahima mi nga xam ne ci moom la ci moom la ci moom la tabaski jaare mën naa wax ne defaluma lu jar may may may ren sama xar mi kon naa ko dencal sëriñ bi ba màggalam nga ba bisam ba ma rendil ko ko bi bi ñu tàmbali di ko wax nag tabaski nag mu xam ne loolu mën naa mën naa jur bidaa sëñ Saalum ne ci la leen wooyee nag di leen bu ko kenn waxati tabaski waaye na ngeen ko tuddee màggal mu ne ne baatu màggal boobu ku ko dégg ci moom nga ko déggee waaye màggal gi nag du caagi nag màggal jëmmam la la ci jublu wala màggal ab liggéeyam dara waaye donte jar na ko sax waaye li jublu mooy màggal yàlla ci sant ko ci xéewalam yu rëy yi nga xam ne defal na ko ko. te muy xéewal yoo xam ne moom nee na rëy na boo xam ne sama cantuk bopp rek li muy rëy rëy na nu nekk nag sant na ko boromam nu ne lu sant di àgg rek sant na fa yàlla waaye nee na may yi dafa rëy rëyaay boo xam ne lottal na dëgg dëgg ma di ko sant ca nam yella ci àqam hibaatuka lii ayat sukuriya fil kunhi laka alhamdu yaa fardan taalayta an subhis nee ne ko sa may yi dafa bari ba lottal na sama cant dëgg dëgg dëgg waaye du tee nag fu ma toll maa ngi lay seedeel sama cant moo tax boo jàng xasida yi rawatina lu mel ne nuuru daaree ni ci mujj ga da ngay gis làkk sukuri yi rek ak dégg nga maanaam sakartu kay ni mu baree lool waaw làkk sukuri rabbi min muharrami li xadmi sil xijjati xadmil xarumi yëpp mu mu sant yàlla ci at mépp sant ko ci lépp waaye teewul mu ne nag na ngeen ñëw nag sant le ma yàlla ci bis bi kon sant la moo tax Cheikh Amadou bi mu wootee màggal gi ba nit ñi ñëw itam bàyyiwu leen rek ñuy doxee ñu leen neexee ci màggal gi foofu kon dafa leeral nu ñuy màggale ak naka la ñuy sant yàlla moo tax ba ba mu ñëwee discours yi mu njëkk def ci màggal gi mooy dafa ne damaa bëgg ngeen xam ne kat bisub sëñ Tuubaa bi xeet wu ne da ngaa am bis boo xam ne bu ñëwee da koy fonk di ko warmaal di ko màggal wax tabaski histoire tabaski ba mu jeex daal moo tax bis bii nag damaa bëgg bu ñëwatee ngeen fonk ko di ko màggale nii ma leen di bëgg a wax da ngeen ko màggal ci jàng alxuraanul karim kon loolu mooy. ni ñuy màggale ni ngeen ko màggal ci jàng alquranul karim lu ngeen man boole ci di jàng xasaayid yi mooy di tudd yàlla ndax tudd yàlla bu ñu ko waxee xasaayid Sëñ Tuubaa yëpp da ko ëmb xasaayid Sëñ Tuubaa mboolem luy xeetu tudd yàlla rek mi ngi ci biir waaw ñaan ak jégguloog salaatu ala nabi kañ yàlla ak sant koog yëpp mi ngi ci biir xasaayid yi daana bu leen ci am itam da ngeen ci boole itam di joxe aw ñam mooy bernde xam ne cosaan la moo doon bernde comme noonu mu ko noonu ñu ko waxee daane da ngeen ci boole bernde te bernde yi da ngeen ci jiital joxe aw ñam jox ko ñi nga xam ne ñoo ko soxla muy foqaraaw yeeg ak maanaam masaakin yeeg ak ak ñi nga xam ne dañ koo laaj ñi nga xam dañ ko soxla da nga leen jox aw ñam ndax joxe ñam dafa am solo lool wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran ba mu jeex yàlla yàlla tàgg na ñi nga xam ne dañuy joxe aw ñam te fekk ñu soxla ko lool waaye nag ñu koy jox ñoo xam ne dañ ko soxla mu ne kon nag da ngeen ci boole joxe aw ñam boole ci itam nag da ngeen ci boole jox ko ak bokk da ngeen ci boole jokk ak bokk da ngeen ci boole itam di ziyaare béréb yu baax yi ak gaa yu baax yi moo tax su màggal jotee nga gis ñuy siyaare barabu sëriñ bi di siyaare armeel yi di leen ñaanal di siyaare béréb bi gaa yu baax yi di sàkku ñaan di jokk bokk itam nag ndax boo xoolee fi màggal tollu léegi ci wàllu dimension ci anam yi wuute dimension sociale bi ak dimension culturelle bi ci wàllu xam-xam ak dimension économique bi ba ci dimension Euh, dégg nga religieux religieuse yëpp boo ko xoolee da ngay xam ne kon la sëñ Fallou waxoon daal lay ñëw waaw màggal ngay gis bu ñëwee mboolem xeet yëpp dañuy daje ci benn bërëb mboolem confession yëpp maanaam euh, mboolem tarixa yeeg association islamique yeeg yëpp dañuy daje ci benn béréb di saafuwante di waxtaan di di di di di di béggee lislaam di béggee ak bokk di béggee réew mi nga xam ne ñoo ko bokk te mënuñu ko séddoo kon yooyu yëpp di ay dimension yu wute yoo xam ne màggal da koo ëmb ba tax na màggal doon lu am solo loo xam ne waaye nag cosaan la nag moo doon dimension diine bi nag mooy tudd yàlla sant yàlla cant ku ne xam ne ne ci maqaama yi gën a màgg ci maqaama yi ci maqaamaatul yaqin ci la bokk ko ni ko imaam Xasaali waxee nee na sëñ bis wax na ko ci minan ne Xasaali nee na can sant yàlla dafa bokk ci maqaama yi gën a kawe ci maqaamaatul yaqin te sant kenn mënu koo def lu dul ñett yi dafa daje mooy faaw nga xam xéewal nga nga nga xam xéewal gi yëg xéewal gi soog a jëfee nag cant xéewal gi te xam-xam bi mooy nga xam ne yàlla moo la jox xéewal gi sëñ bi loolu la xam xam na ne xéewal gi li muy rey rey liggéey na ko de waaye nag yàlla la neex mu jàppale ko téyel ko téyel ko boppam sàmm ko ba mu def liggéey boobu ba yàlla fay ko muy muy sant kon xam-xam la mu ne xam-xam boobu nag mooy jur nag yëg-yëg bi yëg-yëg bi nag mooy mbégte mi nga xam ne mooy am ci sa xol te du doon mbégte moo xam ne da koy bég ci jëmmi xewal gi ci boppam waaye doo bëggee xéewal gi de mais da ngay bëggee borom xéewal gi yàlla mi la jox xéewal bu ñaar yooyu dajee rek cër yi moom day daal di sawar ci jëf cant gi soo baa nag kon léegi nanga koy jëfe mooy xéewal googu nag nga jël ko jëmee ko ci lu neex yàlla moo tax ba muy wax cant ga dafa wax ne su ma koy sant bi fardin wa sunan laa koy sant maanaam dama koy sant moom suñ borom ci ci jëfe farata yi ak jëfe sunna yi danaa ko sant inda tuubaaya wa inda daaratil minan fa fa sama tuubaaje ak fa nga xam ne mooy daarul minan nga xam ne kon ci xa ci bayit yooyu ma ma junj tudd na ci sax booba maanaam màggal gi ne euh, buñ ko mënee defee Touba sax moo gën te booba fekk na tàmbalee guñ ko def Touba ndax wax na Touba ya la wax danaa ko sant alayya su maanaam alayya dégg nga ma sukkuruhu bi gis min waqilaam mooy danaa ko sant ci sama xalima ak sama yaram fa fa fa fa sama Touba ga ak fa nga xam ne mooy Daaru Salaam. waxaat ne feneen ne fa fa Touba waaye fa nga xam ne mooy mi minan nga xam ne kon bayit yooyu yëpp buñ ci delloo danañ gis ne junjoon na euh, ne ne ne ne màggal gi ci boppam ak cant la waaye nag cant gi nag maa ngi ko gën a taamoo fa nga xam ne falaa falaa falaa nekk ñu ñu ma fay fekk dama ziyaare muy muy Touba kon sëñ Fallou daa mel ne moom kon dafa dégg déeyub sëriñ bi ba tax mu daal di woote euh, màggal gi Touba kon noonu lañuy ñuy màggale kon màggal gi ak cant la du folklore du loo xam ne dañuy ñëw daje rek riir mi rek damaa màggali woon def say selfie nangam foto dif nii déedéet boo ñëwee fexeel ba bokk ci ñuy tudd yàlla ndax am na mbokk mu baax suñu muntaxaa gerte day wax ne am na ñoo xam ne danañ màggal si màggal am ñoo xam ne danañ màggal si duñ màggal am ñoo xam ne duñ màggal si ba noppi màggal <laughs> yëpp da ci am wax ju am solo la nee na am na ki ki ki màggal si màggal kooku moom am na ñaari tuyaaba ndax déplacé na ñëw tuubaa muy xéewal gu rëy nga xam ne bu ñëwoon Touba bu dul màggal sax te ànd ak yéen gi rafet rek day am solo ba noppi màggal teg ci nag mooy jàng na alxuraan jàng na xasida ziyaare na béréb yu baax yi jokk nag bokk joxe na aw ñam joxe na addiye nangam kooku màggal si na màggal na am koo xam ne màggal si na waaye màggalut mooy ñëw na moom mooy li gars yi daan kuy kuy kuy gaam moo kuy raas dem bokkut nga xam ne moom dafa ñëw ngir beneen yéene moom wala moom dafa ñëw rek ngir rek ne ci ne ci maanaam ci ci boppam rek ba yiw bu baree bari faat ko ci yiw yi màggal kooku moom ñëw na màggal si waaye màggalut am na ñoo xam ne nag nekkuñu tuubaa ñu ngi ci àll bi ñu mel suñu mbokk yi nekk ci maanaam diaspora bi nga xam ne tey jii boo ñëwee ci kër Sëñ Touba ci ci bisu màggal sa day sedd ndax danañ teel a xëy si tàmbali alxuraan di jàng kaamil yu baree baree bari jàng xasida yu baree bari ci durus ak dégg nga kuréel def ay bernde yu am solo waxtaane Sëriñ Touba waxtaane yoonu géej gi waxtaane ak baaxam ñoo ñooñu ku ne xam na ne màggal si wuñ waaye màggal lañ nag loolu moo doon ko xam nga màggal te doo màggal si euh, kon yooyu yëpp ay ay ay ay ay ay mbir la yoo xam ne dafa mat a bàyyi xel bu ko defee nag loolu kon mooy kon ñaareel tomb bi ginnaaw bu ñu xamee historique gu màggal gi xam nuñ koy defee li ki des kon mooy mooy li mujj mooy nag buñ ko defee ba noppi nag lan lañ ci yaakaar am yaakaar naa ne njariñal màggal moom fi ne ñëpp xam nañ ko léegi ndax njariñal saayir rek daa fës fës fës ba nga xam ne ñu bari sax dañ koy tudd ba fàtte njariñal baatin li waaw ndax njariñal baatin li moo gën a solo ku ne xam ne ne tudd yàlla boo ko def am na lu lay jural boo dee tudd yàlla sa xol day dund sa ruux day dund say daraja ci yàlla day yokk dañ lay jéggal say bakkaar dañ lay fàggul ëllëg te xeeg àddina ak alaaxira kon gis nga tudd yàlla suñu borom te suñu borom nee na saa bu ngeen ma tuddee rek ma leen bu ngeen ma ci wéet ma tudd leen ci wéet ngeen ci mbooloo ma tudd leen ci mbooloo ma fàttaliku leen ci mbooloo moo xam ne moo gën mbooloo ma ngeen ma tudd fadkuruni azkurkum la ko tënkee mooy su ngeen ma fàttalikoo rek ma fàttaliku waaye washkuru lii la wax su ngeen ma santee nag moom laa leen digal waaye wala tak fu te bu ngeen santee man ma dolli leen te comme cant la màggal cant la bokk na ci njariñel cant mooy saaboo boo santee rek yàlla doole la la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santee rek ma dolli leen te te foofu yàlla tënku ko ci dara yu baree bari bu koy wax danaan su ngeen ma ko su ngeen ma defalee nangam ma ma defal nangam su ma neexee su ngeen ma ñaanee ma may leen su ma neexee su ngeen nekkee ci problème su ngeen ma ñaanee ma génn ma neexee waaye ci wàllu sant moom day wax ne bu ngeen ma santee rek ma dolli leen kon gis nga ku bëgg yàlla la déedéet nga dina dolli da ngay sant yàlla te bokk na ci sant yàlla màggal si Touba ba noppi màggal nag teg ci kon gis nga njëriñe maanaam màggal bokk na ci tuyaaba jiy jóge ci sant yàlla ni mu toll ak ni mu rëyee kenn mënu la ko wax kenn mënu la ko wax waaw bokk na ci itam njëriñ yi itam mooy jamono boo xamee ne màggal si nga te màggal maanaam defe ko ni ko ki ko digle santaane mooy yow da nga da da nga da nga da nga da nga da nga maanaam ama amaat amaat beneen yëg-yëg ci ci ci ci ci ci moom ci ci borom màggal gi mooy benn di nga ko gën a bëgg ndax da nga gis ci Tuubaa xam ne dana la yéem da fi déggee itam du la yéem ndax am na ay jataay xam-xam yu ñu fay amal am na ay jataay waa waaraat yu ñu fay amal boo nekk am na ci ñoo xam ne sax ci seen biir kër yi nekk di ay kilifa sax dañuy organiser ay waxtaan ci suba gi wala ci yor-yor wala ci ngoon gi su ko defee ku màggal si boo ñëwee teewlu mën koo déglu kon nag fa jëlee xam waaye da nga fa yokkoo itam ci wàllu ruux da ko fa yokkoo itam ci wàllu xel ak ci wàllu xol kon yooyu buñ ko buñ ci amoon rek mu doy bokkul nag nag ak njëriñ yi koom-koom yi ciy juddoo nag ci màggal nga xam ne jaaykat yeeg jaaykati matelas yeeg jaaykati ndox yeeg bu dee nga borom boutique yeeg borom magasin yeeg ba ci transport beeg ci fànn yëpp transport aérien bi ñi ñi ñi jaay ay billets li ñuy jaay ci période màggal kenn xamul lu mu toll ñiy jaay. Euh, ay ginaar ñi jaay ay xar ñi jaay ay nag ñi jaay ay giléem seen chiffre d'affaires ci màggal gi ay million la léeg ay milliards boo ko dee seet liy dugg ci keesu état ci màggal lu bare bare bare léeg-léeg sax économiste yi di ko estimer ci lu ci xaalis bare bare bari waaye sax dañuy àpp pare rek daanaka daanaka sax duñu xam nu mu toll kon yooyu moom ay ay maanaam maanaam bénéfice zahir la yoo xam ne dafay day fay juddoo ci màggal waaye la gën a yitteel sëñ bi moom mooy yokk nit ñi di yokk ci bu ñëwee màggal si santale ko yàlla mu nekk buntub cant màggal damay xam ne buntub cant la boo xam ne sëñ bi dañu doon sant boromam ne ko ubbil nga ma ko fataxta baaba shukri lii wan xalaqa baabu shikaayati la day ya muxlaqa bi ma maxaa min la ba mu jeex bay di jeex ci ci Nuuru Daarayni di ko wax ne ko yàlla ubbil nga ma buntub cant boo xam ne ba ba ba ba àjjana dootul maanaam tëjooti waaye bi bi buntub cant bi ubbi ko nag la buntub njàmbat daal di tëju nag te loolu yaa ngi ma ko defale bi ma maxaay meñal azabi wal marad maanaam ci li li li nga xam ne moo far moo weesu ci ay ci ay coono ak ay ak ak ak ay ay mbugal ak ak ak ak ak i nattu yoo xam ne dund naa ko ci ci sama biir noonu kon gis nga bokk yi màggal a ngi noonu loolu mooy cosaan li foofu la jaar ba agsi ci ay ci ay état bi wute ba ci état bi fii ñu toll nii nga xam ne tey àgg na foo xam ne ci daje yi gën a mag ci àdduna bi lay doon yaakaar naa ginnaaw aj màkk xamuñu lu ko gën a rëy ci ab dajeb jullit boo xam dañ koy daje ci ci àdduna bi di fa teew di fa tudd yàlla li liñ fay wàcc ci ay kaamili alquran waxuma la sax bisu màggal waaye lu jiitu màggal gi rek li ñuy wàcc ci kaamil kenn xamul lu mu toll liñ ciy liñ ciy durus ci ay xasida kenn xamul lu mu toll am na ci euh, ay famille yoo xam ne borom xam-xam gëstu ci ci yoon wi dem nañ ba gis ne sax na ay famille diine yoo xam ne euh, amoon nañ tuuti ay réero réero yu doxoon diggante waaye ñu ngi gindikoo ci màggal biñ màggal see ñu bokk benn dal bokk di añandoo di ndékkeendoo di reerandoo lañ ne ba gis ne ñoom kat ndekkete lislaam kat moo leen boole woon bu yàgg lu jiitu ak bokk di leen boole ba tax dañuy daal di waxtaan daal di gindikoo daal di juboo loolu am nañ ci ay xeeti exemple yoo xam ne day waxi télé moo tax moo tax doo ci mën a sori ak association islamique yi xataa ñi nga xam ne sax bokkuñu ay macharib maanaam bokkuñu ay naanuwaay xam nga ne am na ñoo xam ne dañuy gëm tarixa am ñoo xam ne gëmuñu tarixa waaye bu màggal jotee ñépp ñëw daje waaraw du reexeen misaal ak yeneen daayira yi nga xam ne dañuy yëngatu ci xam-xam dajale ñooñu xamal leen sëñ bi ci ci ay conférence ci ay waxtaan yoo xam ne bu ñu fa jógee danañ gën a maanaam bokkaat seenu mbokk diine waaye seenu mbokk réew mi ak seenu mbokk doon ay sénégalais muy kon loo xam ne kon lu ama am solo loo xam ne ñu ngi ñaan yàlla daal euh, màggal gi euh, yooyu ci sëriñ bi digge yëpp ndax waxoon na ne képp koo xam ne def nga ko ni ma la ko digale santale ma ci yàlla su ëllëgee maa lay fayal sama bopp du ma la boolee kenn maa lay fayal sama bopp daa wax sax ne bu ëllëgee bu ñu demee ba àjjana àjjana amul bis amul waxtu amul daal li ñuy tuddee espace ak temps man maanaam notion espace ak temps amul àjjana amul sax àllaaxira amul sax dégg nga bar sax daa waaye nag bis bu ñu demee ba nekk àjjana saa bu fukki fan ak juróom-ñett safar delsee fu waaye nekk ci àjjana ndab dana la fekk loo xam ne da nga laaj lan moo waral xéewal gi ak teraanga ji yokk ci àjjana. soo baa dañ lay xamal ne kat bisub Serigne Touba ba al Abdul Xadim bisam boobee di màggal Touba moo dellusiwaat loolee nag kon day lu rëy rëy loo xam ne bokk yi war naa tax ñu gën a waajal bis bi gën koo gën koo gën gën koo fonk gën koo jox li mu doon te xam ne nag wax dëgg yàlla bu amul woon nag bu amul woon la sëñ Musaa Ka wax rek sëñ bi sëñ bi ko wax nee na mu ne nee doog a nag doog a nag dem gi wolof nasraanu te kon billaahi ñëpp dem ni raanu ndax bu demul woon ci géej gi kon dara du ko jar waaye bu demoon ci géej gi ba noppi ñibbisiwut ba màggal gi amut ko itam dara du ko jar kon alhamdulilah ci yooyu yëpp nga xam ne dem na ñibbisi na andi na sërica liggéey na ba wàcc andaaleb sërica ba taxoon mu naan sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shaafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi daw mi te sërica booba da cee bokk shaafian li qawmihi mooy mooy ramm di tinu aw nitam bu bu ëllëgee euh, ku ko yaakaar te ne ca lam bëgg di góorgóorlu da nga neex a lool kon daal sëñ bi daal loolu mooy ab bisam bisub Sëñ Tuubaa mooy bisub màggal bii dañ ko ko fonk le dañ ko ko téele sëñ bi laa dafa laay jeexale dafa waxoon ju awax ju am solo ne doomu aadama bu nekk boo bu fekkee danaa defal teraanga ba teraanga ji rëy ci yow ba xamoo loo koy fayee da ko naan yàlla naa dund ba fekkee sa bis ba ray sama bopp ba ray ci sama bopp daal moom nag Sëñ Tuubaa nag ku ne xam ne ne teral nañu teraanga joo xam ne daanaka daanaka jomb nañu jomb nañu sax kon ba noppi mu ne nag waaye nag nekkul ne dañoo teral ba noppi te amul bis ah, am na bis de bisam mooy ban mooy yow ma yow yow ma tubula sarairu bis boobu nga xam ne bu ñu ci àggee suñu borom day woo sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu ginnaaw bi mu woowee yonent yi kenn ku ne mu ne la la ma la dénkoon noo ko noo ko doxalee bu àggsee gi sallallahu ba laaj ko sallallahu alayhi wa sallam day wax saxaaba yi ne leen yéen itam balaa balaa may wax dara dama leen di laaj yen li ma leen bàyyee woon ngeen ko doxalee ñooña ñooña ñooña watt seen i àndaar maanaam ñooña dégg nga natt seen i bu ñettee ba àggal ba ñàkk ci sëriñ bi mooy ñi nga xam ne ñoo topp ci saxaaba yi bu ñàkkee ci sëriñ bi sëriñ bi moom balaa def dara moom itam day wax saadi xam yi nga xam ne ñoom la defaroon ba def ci ñoom li ne ci moom ne leen yéen itam jóg leen ngeen natt seen i àndaar ma dégg ñëpp gis ñooñee dañuy danañ jóg di def loo xam ne ña ña leen jiitu woon ci ay yonant ak ay saxaaba loola lañ doon def mbaa lu ko raw ba mujj penc mépp ñooy maase wax nit ak ginneeg ki ñoo xam ne moo ana ki nga xam ne biñ tuddee aw turam ak léegi ay waa këram rek ñooy def la ñee doon def te moom kooku moom kooku jógagut kooku kan la Cheikh Ibrahima nee baat boobu bii Sëñ Tuubaa na ku bokkul ci ñu ma ko amal ëllëg ñi tax ma ko ëllëg féetewoo ma fenn kon nag ñun yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne bu ëllëgee danañ ci ñi koy féete foofee te bañ a nekk aw maanaam gàngalam aw gàngal mooy koo xam ne dalaa yilif ba noppi te amuloo ko njariñ ba noppi ba noppi moom fu mu toll dégg nga di la jariñ Euh, loolu yaakaar naa ne lu mat a bàyyi xel la kon daal ñoo ngi ndokkeel ñëpp ci bis bi di sant ñëpp di ñaan yàlla fayal ñu sëriñ bi te yàlla may ñu màggal gi ñu def ko ci jàmm mu lépp jàll ci jàmm te lépp luñ ci séentu ñu am ko am ci lu kayo suñ jort te xam ne lu ci waay bëgg rek mën nga ko ci fas sëñ Bilane woon bu ngeen gisee ma leen ci soññi ak li leen ci gën a xiirtal mooy dama leen yéene lu ne te xam ne li ma leen yéene lépp mën a lu ma leen ko waaye mu leer ma ne bis bi sëñ Tuubaa bii lu ko waaye saf àttan na ko lu ko waaye sëf rek attan na ko waaye nag na ànd ak yéene ju sell ak pasteef ji kawe kawe kawe kawe yàlla yàggal fi bu baax Cheikh Mountakha Modou Bachir Modou Bachir te wéral ko lool màggale yéene ma ki naalam te ñun taalibe yi itam yàlla yàggal ñu ci wetam ñu gunge ko ci liggéey bi ba ca kanama kanama kanama kanama kanam wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu